assurance maladie dafa am solo parce que balaa nga naan naam ne fa su fekkee ne da nga ne ci marché bi suba ngoon guddeeg bëccëg boo amul wér gi yaram du dem donc forcément bu ngeen demee ba toog nekk dans le secteur informel te terewul yéen a ngi seet naan ah war nañu mën a am assurance maladie mais ça c'est très important ñu ne waat dañuy def édition première édition am nañu bureau ñi ngi seet ni ñu organiser wu loolu mooy la première marche vers la formalisation ça veut dire que ay professionnel ngeen loolu nag boo ko amee journée 8 mars nga taxaw séddoo koog mbokk yi séddoo koog ñi yor politique publique yi séddoo koog communes yi dama ne def ngeen li ngeen war a def soo leen wutee GIE am seen registre de commerce am seen NINEA dinaa leen man ci sama bopp defal accompagnement